yàlla lu muy jëfit ngërëmul yàlla da cee dàkk loolu mooy ni ko sëñ bi jëkk a xamlee ñaareelu xamle gi mën nañ ko jànge ci mineel baaxil xadim bu Cheikh Mouhamadul Bachir dafa wax ne sëñ Touba ba muy door a sanc fële ca Touba te taalibe yi nekk Daaru Salaam dafaa yebal ku ñu wax Abdullahi Jaw ne ko soo demee na nga wax taalibe yi ne leen sëñ Touba ci njëlbéenam dafa amoon aw tàngooru boppam boo xam ne ku nekkoon moom xam nga ko da wax da leen na wax ñoom ñëpp ne leen kenn ku ci maanaam suñ bés wax ne képp koo xam ne ci ñoom da wax ne képp koo xam ne ci yéen yitteem mooy adduna nga dem bàyyi ma fi bàyyi sama daara képp koo xam ne itam àllaaxira kese mooy sa yitte nga dem bàyyil ma fi daara ji koo xam ne adduna ak àllaaxira kese moo la yitteel it nga dem bàyyil ma fi daara ji ah am na ñoo xam ni bëgg nañu ñu waaye àjjana lañ bëgg a dugg àjjana xéewal lañ fa dégg lekk yaag naan yaag bërëb bu xéew loolu moo tax ñu topp sëñ bi moo tax sëñ bi leen koo xam ne àlaxira kese mooy si yitte nga dem koo xam nag yàlla kese moo ko ñor mu toog maanaam ñoom doon tërbiya àndoon ak ñoom ca dox ba ñu mooy ñi nga xam ne yàlla kese kese moo leen ñor nga xam ne aljanna taxul a topp sëñ bi taxul leen di dox taxul leen di jëf dara sawara itam ragal ko toxu leen di jëf kon murid loolu bokk na ci niñ ko xamee moy ko xamni limi jëf ni mané jaamu yalla ak yalla nuko digal nu war ko jëf yi ñi def ni ci jaamu yalla digal luñ la digal nga diko def nax yow da nga dib jaamu yalla di sa borom waye boko dé def ngir bëgg aljana loolu sik ngi dugg donte ayut nak waye mouride day weesu yoy mouride lu kawé la ana da ngay doon julit di def yi julit yi def ba nopi té man nga nek muslim te doo doonagut mu'min xam nga ay saxaaba ay arab wax nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam qaalat al arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu na ñëw nañ wax seen ngëm wax seen pas-pas ba àgg ne dañoo gëm yàlla yàlla wàccee aaya ne ne yonente bi wax leen ne leen yéen gëmagu leen wax leen ne ay muslimoon lañ waaye àggagu leen ci iman wala maa yadxulul iman fi qulubikum da ngay doon jullit jullit mooy ki nga xam day jullee ko woor ak a def yooyu jëf yi yi cër yi jëf bu demee ba ngëm dugg soxal na kooku mooy mu'min soo weesoo état boobu nag ci la ak murid tàmbali nag mooy boo nee ba yëg ne yow dangaa bëgg a dox nag dégg nga wuti maqaamul ihsaan dégg nga an taabudallaha ka annaka taraam loolu foofu la nga foofu la murid tàmbalee maanaam ñi jébbalu sëñ bi yëpp day dem def yi yëpp dañ daa jullit di woor doon ay jullit waaye ñu ñëw jébbalaat seen bopp sëñ Tuubaa moo tax kon am na leen luñ doon sàkk lu bokkut ak julli ak woor yi nii bu ko defee kon loolu bokk na ci ni ko sëñ bi xamlee buñ ko toppoon ni ko sëñ bi xamlee lu bare bare la am na ku ko mas a laaj te mi ngi ci majmaa bi Cheikh lat moo doon ne ko dama bëgg nga gàttalal ma ak taalibe bi mooy lan sëñ bi ne ko mooy al mutabaatu bil i'tiraad wa xusnu dhanni fi kulli shay'in wa imtithaalu al awaamiri sirran wa alaaniya wa ijtinaabu nawaahi sirran wa alaaniya maa taaddubi zaahiran wa baatinan ne ko ak taalibe bi mooy top sab sëriñ te do dingat tali bi ak dali bi yombut moy mooy ànd gi nga and ak bi dang koy baye sa bop te do ci amuk tan bolé ci do amuk bëgg itam te doo dinga dara itam te da ngay rafet ndortu ci mom ci lepp nak bolé ci di top ndigalam ci say rek ci batine daw ay teram zahiram ci bat zahir ak ci batin boole ko teggin yoo xam da nga koy ànd ak moom àndeek moom ci zahir ak ci batin bi tarki kulli ma la yaani xaw wa fi'lan lépp lu amul njariñ lu la njariñ nga bàyyi lépp loo xam du la jural njariñul adduna mbaa àllaaxira waxuñu njariñu adduna loo xam ne adduna kese tax waaye lépp loo xam ne amul njariñ rek ci adduna ak àllaaxira lépp nga bàyyi ko ci wax wala ci jëf noonu la ko sëñ wax ne loolu mooy gàttalu yoonu ak taalibe ba tey wax na feneen moom Sëñ Tuubaa ne al muridu man laa di yamliku shay'an wala yamlikuhu shay'un murid dara moomu ko moomul dara yàlla kese koy moom moo ko yëlif moo koy tax a jóg moo koy tax a dal maanaam loolu it moo tax murid googee sëñ bi yombut <laughs> murid yi ni wax ni boo dégloo xam ne yii sëñ wax rek ak ak maa ni mu ko xam ne nga xam ne lii yombut moo tax sëñ bay jax daa wax ne murid dëgg yombul la yombay nga wax ne man ab murit laa te doo ab murit sëñ ba jax dara wax ne gisal waaye ngi jug di dox ci murit ba am ay murit te kat du murit gisal waaye ngi jug di dox ci murit ba dundam nga farjee mu réer ak murit di yëngu ci